Mamadou Wane maa ngi lay nuyu. maa ngi delloo nuyu bi man maa ngi lay nuyu di nuyu sa auditeurs yëpp. voilà Mamadou Wane nga nekk euh, sociologue nekk expert en analyse euh, politique et sociale laaj bu njëkk xam nga fan yi dañu euh, rendi benn nit fële ca Pékin ci banlieue bu Ndakaaru atrocité boobule ñu gis ci société sénégalaise en tant que sociologue ban jàngat nga ci am ci li ko waral ak aussi lan moo si solution. jox sama xalaat comme ni nga ko waxee euh, ci ci euh, comme ni ko waxee maa ngi ñaawlu loolu ba pare euh, di masawu famille bi di leen jaale di jaale Sénégalais yëpp mais question boobu xam nga la société société yëpp ñoo am ñooy ñooy produire violence violence ba nga xam ne da ngay tàqaloog sa sago def li nga xam ne mooy rey nit Ah, jël bakkanam ak yooyu jël bakkan yi comme ni nga waxee ah, mun nga jël bakkanu nit ah, mais forme yi dafa dafa bari mais comme ni nga wax ni ren bi ak yooyu ou bien jam nit am na yenn kii nga xam ne si nit su fa yeggee rey nit sax soo fa yeggee rek dafa am li nga xam ne moo tax nga def ko mais kenn warul nangu loolu mais soo gisee ñu def ko nga nekk ci jamono ba nga xam ne soo xoolee bu baax ah économie bi suñ day produire violence ah, ah, économie lu tax muy produire violence dafa am lu ñuy wax inégalité ah. soo xoolee par exemple nit ki lan mooy mobile am mun na bari mun na nekk sax détail détail mm-hmm. ay kii yu ndaw mun nga nekk détail am na xam ne jam nañu leen pour téeméer am na xam ne jam nañ leen parce que dañ doon xuloo am na xam ne rey nañ leen parce que ci biir euh, kër la euh, waxante saaga mbaa dépense bi matul pat yooyu yëpp ci mais soo ko gisee foo jaar nga xool nan la société bi di doxe est-ce que ñëpp yam nañu ci am nañu base minimum bi nga xam ne moom la ñu wax existence existence malheureusement suñu dëkk yi amuñu ko beneen bi mooy aussi na ngay gis parce que nii ñi dañuy gis ah, soo gisee aussi nga nekk ci benn dëkk ba nga xam ne ah, si soo xoolee eh, ñu yore ñu yore nguur te te nguur de nguur lu am importance la du question rek nekk naa ministre bu nekk naa ci benn position damay am xaalis am naa teraanga yooyu <laughs> mais nguur mooy yooyu yaa yore lu ñuy wax monopole violence ah, légal am ay alkaati am ay gendarme am ñi nga xam ne et cetera et cetera et mais soo li nga xam ne doole boobu yore nga ko te doxaloo ko nu nga ko waree doxee ah, ah yooyu itam day produire ah, ci ci ci ci ci nit ñi ah, nit ñi benn sentiment ba nga xam ne benn sentiment ba nga xam ne finalement même soo xoolee lu ndaw ndaw ndaw da ngay xalaat day jouer ci. c'est ce qui que violence légale c'est normal c'est normal c'est normal nga fajal sa bopp euh, say problème et cetera mais soo demee nag aussi ba gis ne yenn forme yi comme ni nga ko waxee bon rey moom amu forme douce ak forme violente mais au moins c'est vrai question boobu lu tax léegi mu ci loolu dem ba jiw ay rendi nit soit da nga taxale ko sa sago ànd toog dem ba rendi nit ànd toog sa sang tax lu ko lu ko yu bari la wax naa ko environnement économique environnement social environnement politique et environnement même psychologique <laughs> psychologique dëkk bi dafa am tension bu metti bu metti ñëpp actuellement ñu ngi nekk ci lu ñu wax xamul nan la ko expliquer benn stress généralisé donc jot nga xam ne ñu dalloo réew mi dal dafa jot mais léegi pour mu loolu nag il faut ci éducation ci école yi ci daara yi il faut aussi que acteurs comme religieux yi bon di wax di def ay serment acteurs politique acteur associatif acteur communautaire ñëpp tey waroon nañu am lu ñuy wax ñëpp xàccandoo jëm ci benn jëm ci sensibilisation nga xam ne violence ah dañuy wax rey nit lu mu tekki rey nit li nga xam ne soo ko defee ah, religion yi lan lañ ci wax ak yooyu et cetera ak aada yi lañ ci wax. est-ce que yow euh, jàpp nga Mamadou Wane que problème mu euh, atrocité bi euh, peine de mort mën na ko régler. non man gëwuma loolu gëwuma peine de mort mu régler atrocité su doon peine de mort day régler atrocité peine de mort au moins dana fu mu am waroon na wone. que rey yeeg yooyu dafa wàññeeku te kenn mënu wax tey ah, tegal la ci sa bët ou bien ci sa loxo wala ne dëkk yi nga xam ne am na peine de mort ah, am na peine de mort ah, moor bi dafa c'est-à-dire assassinat yi dañu wàññeeku par rapport ak pays yi nga xam ne dañu abolir peine de mort dañu abolir peine de mort suñu dëkk en Afrique ñu abolir peine de mort bariwul mais soo xoolee dëkk yi nga xam ne aboliir nañ peine de mort est-ce que par exemple fu ñu abolir peine de mort moo ëpp euh, ay ay ay ay kii na lu ay rey par par rapport ak euh, yeneen dëkk yi gow ko mais man ci sama bopp man ci sama bopp individuellement man gowma que peine de mort dana ko régler voilà Euh, en tant que analyste euh, politique et social ñu laaj la tuuti ci Euh, actualité bi euh, soxal élection présidentielle bu 2024 nga gis ni ñi nga xam ne ñooy recalé yi ñu déposé woon seen candidature te conseil constitutionnel rejeté ko euh, dañu bindoon benn lettre daal di si interpellé njiitu réewu Sénégal di Macky Sall ba njiitu réew mi war leen a daral am ci benn pàcc boo xam ni comme ñoom Aminata Touré ne duñ wuy ji ca convocation bu président Macky Sall déjà naka nga gisee xeex bi nga xam ni lëkkale yi soobu nañ si lan la la inspiré loo si jàngat exactement Mamadou won non lu ma njëkk a jàngat rëkkale yi dafa bari wax dëgg daal de rëkkale yi dafa bari te lu tax nu rëkkale leen day wone ah, suñu démocratie ba léegi dafa feebar am na ñoo xam ne dañ ñàkk ci gannaaw di ko jariñoo ah di def fexe ba nga xam ne ñii dañu war a bokk ñii duñu bokk soo demee ba démocratie yi. Ah, xam ne ñun ñëpp ñoo dëkk bi dëkk bi kenn profité waa kenn ku jàng ak ku jàngul des fois damay dégg waaw dafa bëri ay candidat mais pourquoi pas pourquoi pas su la yoon mayee nga nekk candidat da ngay nekk candidat ou bien ñii voilà waruñu nekk président pourquoi waruñu nekk président président kan moo ko moom cest à nit ñi dañ dugal seen bopp yëfu tubaab yooyu nga xam ne man dama jaax des fois damay jaaxle su nga nit kii da ngay am principe am principe ñun ñëpp ñoo yem <laughs> citoyen la ki nga xam ne bokk nga ci liste électorale loolu la ñu wax <laughs> tu es inscrit war nga doon candidat <laughs> candidat waaw léegi nag c'est vrai aussi que dañu war a teg fexe ba nga xam ne bon munoo am ay un million et quelques de candidats mais loolu aussi parrainage bi ci lool la <laughs> mais fii dañu dem ba diisal parrainage ba nga xam ne mën nañ la caler pour ay question cle clé USB loolu dafa rusul sax ñu ñuy dégg sax dañuy ruslu yow nee na la fiche rempli na ay fiche signé fiche yi nga ñëw ñu ne la su dee bi kenn mënu ko jàng kay ñu génnee kii <laughs> nit ñi dañ sonn remplir pourquoi duñu génne loolu pour xool pourquoi ñu may aussi ki ñu décalé kii nga comme ni nga ko wax dafa mel ni segg bi dafa am par exemple segg dañ ko teg pour segg ñenn ñi segg ñenn ñi waa da nga juum fii tur c'est pas non du kat mën nga juum ci tur mais waroon nañ xool rek carte numéro carte électeur est-ce que carte électeur rek euh, carte électeur bi sa numéro ak yooyu mënoon nañ ci xool jeex na donc man yaakaar naa ne loolu day wone que vraiment suñu démocratie bi ba léegi dafa tawat te am na ñu ko tawat lool léegi nag ñu nga xam ne bind nañ c'est normal ñu bind parce que président su fi nekkee dafa war a nekkal ñëpp mais président aussi du xaal ba léegi ñu ne day woote lan lay woote c'est-à-dire woote pour lan mënutul leen leen dugalaat <laughs> parce que conseil constitutionnel wax na ba pare. su dee dañ leen di woo pour xool nu ñuy reporter day indiwaat beneen problème bu gën a garaaw même ñoom sax ñoom ñëpp nee nañu ñoom waxuñu affaire reporter et puis et puis président kay <laughs> soxlawuloon sax muy muy woote dina ay dëkk yooyu suñu bàyyi ay nit di kii ñuy teg ay problème après muy woot yooyu dañ ko war a bàyyi dañu war a doxal doxal normal ba nga xam ne doo soxla woo kenn sénégalais yi même ñoo ñu ñu recalé suñu leen recalé woon comme ni nga ko waxee ci yoon kenn ci ñoom man ñu nga xam ñi bokk ci ñu ñu recalé du ñu poser problème bi mais léegi recalé nañ leen président bind ñu bon président non yooyu warul dox c'est comme par exemple wooyu soo bokkee ci dialogue des fois damay dégg wooyu waroon ngeen bokk ci dialogue mais kooku ça n'a rien à voir avec ce droit à la démocratie nga bokk dialogue ak bañ a bokk dialogue mais ñu ñu dem dialogue national ak ñu demul ñoo yam ci réew mi ci démocratie ñoo yem et dañuy gis la nga xam ne kenn mais soo jëlee ka Ousmane Sonko da mais ñëpp la naqadi képp ki nga xam ne démocrate nga dafa lay naqadi yow nee nañ la voilà que yow ah voilà bon liñ la tere woon li c'est pas normal mais condamné nañ la et cetera Karim Wade ne voilà <laughs> wa yow ah këyit ba nga indi c'est trop tard kële <laughs> ba muy déposé kon condamné wu ko mais nee nañ la dañ lay génnee parce que condamné nañ la kële indi këyitam <laughs> nu ne la ah nu ne la ak ah, këyit bi kat bi ngeen di décret bi wane que nationalité française amatoo ko c'est trop tard parce que ba ngay déposé amoo woon décret bi non il faut être sérieux il faut être sérieux démocratie ëpp na loolu waruñu teg ay démocratie ci loxo ñi nga xam ne gestionnaire ñi nga xam ne matuñu. am na ñuy wax ni euh, est-ce que duñu reporter élection yi loolu loo ci xalaat. mais dama ne kooku teguñu ko fenn report élection dafa am dañ ko encadré. Hmm. sooy def da def lu yoon santaane. soo xoolee ci code électoral ci bon bëgguma sax dugg ci ay détails dafa am dafa am report am na fu ñu ko teg mais lii ndax recalé nañu ndax parité sec non ndax kii ak yooyu ñu bëgg ci profiter pour ne dañuy reporter suñ ko defee rek day ñaaw xel day ñaaw te xel ni ñu commencé na ñaaw report daal conseil constitutionnel génn na léegi nañu bàyyi ki nga xam ne mooy juge juge suprême muy le peuple comme fixé nañ ko février parce que souveraineté bi il faut nous arrêter aussi la démocratie du question ay appareil administratif appareil judiciaire di manipuler di def lu leen neex l'électeur est souverain le peuple est souverain askan bi moo war a décider comme dem na ba nii nañu bàyyi peuple bi décider kon Mamadou Wane ñu ngi lay remercier bu baax a baax. may fàttali ni euh, sociologue nga nekk expert en analyse politique et sociale Mamadou Wane jërëjëf ci disponibilité bi